démb nag ñu ñëwoon ci wàllu fay ak ak lu mel ne ñi nga xam ne dañuy woor ba digg bëccëg ñuy lekk te tay ko yab guñ yab seen boroom tey ji nag ñu bëgg a ñëwaat ci leneen mbokk yi tey nag dañuy wax ne ki nga xam ne yàlla daa dogal daa woor ba digg bëccëg mu wàccu te tëyut wàccu mi kooku day bu mu dog kooram te kooram baax na kooku nag day wuuteeg ki nga xam ne moo tay wàcc mi ki nga xam ne daal moo def li tax mu wàccu kooku kat fan layil kooku fay da koy war waaye nag buy fay benn fay benn fan rek lay fay bu fekkee ne moo tay wàcc mi te bi wàcc mi génn dara delluwaatut ci biir waaye su fekkee ne bi moo mi te bi am na lu delluwaat ci biir wax nañ ne kooku day fay ba pare kafaara mbokki julli yi kii nga xam ne dafa tëdd digg bëccëgu koor di nelaw mu gént ba am lu génn ci moom kookukat bu yewoo day sangu rek waaye kooram ga dara yàqu ko tey koor gu wér la koor te dara nekku ca mbokki jullit yi ba tey bokk na ci liy tax koor wér mooy kiy woor mu set ci ñaari deret yi nga xam ne day ànd ak soxna yi muy gis mbaax ak ñi nga xam ne buñ amee doom ba noppi da am loo xam ne mooy topp ci doom ji ñaar yooyu li fi mi ngi ànd ak yow sa koor du wér waaye nag doonte dangaa dem ba fajar gi des tuuti yàlla dogal nga set kookat wajaba alayha sawm kooku war naa woor saalikal yow bo bile bis doonte sax sanguwut maanaam lu ginnaaw fajar ga ma bis booba da koo war a woor moom soxna yi daal fuñ sete ci deret yooyu ñuy àndal nañ daa di yéene fas yéene woor donte sax sa sanguwum mbokki jullit yi ñii kat seen koor du wér ku mel ne ab dof wala koo xam ne nii dafa xam moo xam ku nekk dans les ñooñu day seenu koor du wér waaye nag wax nañ ne saa suñ jëllu siwaatee ci seenum xel donte ay at yu bari la it koor yooyu leen raw dañ koy fay kon daal ki nga xam ne ci suñ jamono ji ñu ngi koy jàppee dof maa ngi jéggulu ci kàddu gi sax ak ki nga xam ne yàlla dogal na mu nekk ci ay situation yooyu ñuy wax daale daale comment ba nekk hôpital nga xam ne xamatut ci boppam dara ñooñu day koor du leen war waaye saa suñ demee ba àndaat ak seenum xel ba nekkaan nit koor ya nga xam ne moo leen rawoon dañ koy fay kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mbokki jullit yi bëccëgu weeru koor it nag sopp na ki woor di socc waaye bu mënee di bañ a soccoo bant bu tooy mooy gën waaw ba tey ki nga xam ne yàlla daa dogal mu woor ba digg bëccëg léeg mu am ci yenn dëkk yi tàngaay sonal leen ba nga xam ne dangay gis ñoo xam ne tàngaay bi day xar seeni tuñ ba mu mujj di nàcc ñooñu buñ galaxndikoo ngir tooyal seeni tuñ sax dara nekku ci waaw wala ki nga xam ne nii yàlla dogal na mu ànd ak soxnaam ci bii ci guddig weeru koor sanguwut ba suba jot lool yi dara nekk ci bu xëyee day sangu rek ndax euh, euh, yonente bi salaa euh, jële nañ ci suñu yaay Aïsa mu wax ne yusbihu junuban min xayri ulmin suma yasuumu yonente bi salaa salaam yeewoo janaba janaba ci lu dul gént daa di woor kon ñooñu nga xam ne it yàlla daa dogal ñu ànd seen soxna ci guddi gi sanguwun ba suba jot dañ maanaam danan woor bu buñ xëyee dañu sangu rek kon ndool yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mbokki jullit yi am na soxna soo xam ne moom yàlla dafa dogal mu toll ab diggante maanaam ni niñ koy waxee ci suñ dëkk yi maanaam mu ëmb maanaam toll diggante am doom nekk ci biiram kookat bu fekkee ne ragal na ne bu wooree doom jim ëmb dana am ay jafe-jafe wala moom mi waajuram bu wooree dana am ay jafe-jafe la ca gën mooy wala la ca war sax laay wax mooy na dog waaye nag dafa am ñu wax ne day leele am ñu wax ne du leele buy fay kon soxna si nga xam ni dafa tollu diggante yàlla dogal mooy ragal bu wooree doom jim ëmb am jafe-jafe wala moom ci boppam mu am jafe-jafe li li war ci moom mooy mu dog bu demee ba génn ci situation yooyu mu nekk mu fay la nga xam ne moom la dogoon ci koor gi am na nag ñu wax ne day leele am ñu wax ne du leele kon loolu ñu bàyyi ko xel baax a baax ba tey mbokki julli ji ki nga xam ne nii day nàmpal soo soxna si nga xam ne day nàmpal te muy ragal ne bu wooree mm, dana manqué meew te dana lor gone gi nga xam ne moom lay nàmpal wala du baax ci moom mi nga xam ne mooy nàmpal te doom ji nga xam ne nii it moom lay nàmpal nanguwut keneen nàmpal ko wala moom amut lu mu fayee keneen mu nàmpal ko kookat lañ wax mooy na dog waaw na bañaan woor bu koor gi jàllee mu fay waaye it nay leele waaw kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mbokki jullit yi yooyu di am solo lool ci koor ba tey mbokki jullit yi mag mi nga xamee ne yàlla dogal na àgg na foo xam ne mënatut a woor ku mënatut a woor moom kenn du ne ko booy fay ndax moom mënatut a woor kooku moom maanaam sopp nañ ci moom mu bàyyi maam kooku day bàyyi koor gi carrément ndax moom mënatut a woor yàlla suñu borom teggil na ko ko waaye nag bu fekkee ne mën na di leele it moo gën waaw waaw kon euh, loolu mooy ñi nga xam ni ay ngant da leen di dab ci biir koor kon mag mi nga xam daal dem na ba mu amatul kàttanu woor bu wooree mën naa am ay jafe-jafe ci dundam kooku day bàyyi koor gi rek di leele kon ñu yemandi foofu ci suñ ñeenteelu waxtaan bu suba incha allah dina ñëw ci suñ juróomeelu waxtaan àggale yi nga xam ni nii moo jëm ci wàllu koor ñu ngi siyaare ñëpp di jéegulu ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.